man yow moom ma lu may wax ak yow nga defal sa kanam gi nu fu dën law bi waaw nga jàng daa nga sant nga jàng man nag yow tataaya da yow nga gi foo jëm fu nekk yóbbaale ko ay yóbbaale sama kanam gi fu ma jëm yóbbu ko ah, baax na gis nga ni ma def papa ba mu jox sama quatre cent nu ko raw laa leen jox ngeen jox ma sama xaalis boo weddee nga laaj ma na mu doon ni ma koy def ci kër gi du ko raw laa lay def nga faa na doon sax faaleetuma ko oh, gis nga ci xew mi jeexate la xew mi laa nar a ñuus meer mu tëj